ولا تحقر الكلبا ولابن حبيب الله سيدي أحمد مقام رفيع أخجل الحكم والحرمان أطال إله العرس فينا باباه dañ koy yeesal rek mu ne ndigal li mooy dañuy yeesal lépp rek waxtu ne dañ koy yeesal bu mu yokk. mu ne dañ koy yeesal bu mënee yokk na yokk rek waaye kii daay du wàññeeku mukk. li Seydi Ahmada Bamba yaa ma yaruumu sabi li hammi Seydi Ahmada Bamba munqal muaala ma lana laaba wal masaaya wa kufana al afaati wal rasaaya وكفنا الكسل في الأوقات